livre solution pendant dix ans ay nit dee ci dem ba pouvoir projet bi ñu koy. xam livre solution Je vais grand. livre solution. mom su lay wax bind na ko contrat pétrole 10% bind na livre yagana na ku bëgg na livre. après dina ñëw ci El Malick la ku bëgg xam demal nga livre dina ñëw ci ñëw après. mais d'abord livre solution solution man lire trois fois. solution veut pied' bëgg naa def lii bëgg naa def lii am na si benn programme boo xamante ne dama ko doon lire damay reereetaan la ma doon jàpp parce que Ousmane ko daf ne ci livre solution ah, mu ne boo demee <laughs> dañoo bëgg ñoom Sénégal 2030 mu doon un producteur de voiture euh, euh, euh, de voiture mais moom option bi mu jël mooy Europe xam nga dañoo nekk dans le cadre des ODD waaw dañu bëgg tey jii dindi voiture à combustion yoonu mm-hmm. yi jël moteur à combustion dugal voiture électrique yi léegi dafa bëgg léegi usine yooyu ñu délocaliser ko indi Sénégal c'est-à-dire ñi arrêté polluer yow ngay polluer <laughs> lool ban vision nga am dans le futur ah pour Sénégal polluer deuk c'est-à-dire comprendre sax lan moy objectif de développement durable fofu ngay xamé né fi premier cuuneem mu ngi non mhm. deuxièmement ci livre bi daf ñu décriral bopam Ousmane Sonko limi muy dund ni nii yëpp boo demee ci livre am da nga ko fay fekk parce que daf ñu né ci livre bo démé page 21 ñoom seen mouvement seen parti politique mouvement lañ ko de woon. daf ne ce mouvement de résistance est apparu dans tous les sphères de de, de la vie de la nation. mu dans l'administration dans les corps de contrôle ba pare ne OFNAC yaa ngi dégg. et même dans l'armée armée <laughs> kon ñun ñi wër. da hmm. nga xamante ay hauts fonctionnaires lañ et cetera et cetera donc ñoñu on comprend que ñom ñoo ki won. Xana ñom ñoko don jappalé kon exemple parce que moi, moo dans son livre du l'ai inventé les ñu qui pétrole à gaz mu Sénégal 10 pour la ci am. 10 mais Sénégal 10 pour pétrole à gaz bi. am nañu 64 qui est GTA 52 c'est Sangomar. très bien les 10 reviennent des parts de la euh, Petrosen. xam nga tey Petrosen dafay ñëw. Mhm. représenter du Sénégal dans les contrats pétroliers Petrosen yow bo ñëwee nga né da ngay sét pétrole wala gaz dang koy jox 10 10 pour cent Petrosen ci contrat bi ngay té dugulul un franc. Wow. ngeen exploré. boo leen gisee Petrosen mën na yéegal paaram ba 18 lool mo am Sangomar. effectivement légui dafa am lu ñuy wax cost oil. moy coût pétrolier. coût pétrolier yoy non. par exemple bu Sangomar 75 la. mais bo démé ci contrat bi. CRPP bi boko liré parce que contrat bi depuis 2004 la. boo liiree CRPP bi. di nga gis né dañ né

tabax nañu ay pipeline ci duggu géej bi. Mhm. ñu ngi manque pétrole bi ñu ngi koy yóbbu. Mhm. yow xamoo ko man xaw ma ko moom xaw ko. waaw moom ci boppam bi Birame Souleye Diop di présenter première barrilu pétrole bi président Diomaye. Mhm. moom moo daw ñëw taxaw pour bokk ci photo bi. waaw léegi yan pipeline lañ tabaxoon ak ban pétrole moo génnoon Sénégal. pétrole mosul génn Sénégal. léegi wax boobu yow noo ko tuddee. non wax boobu noonu cest di du dëgg. un premier ministre tey. du dëgg loolu noonu cest dit dire deug donc vous acceptez amul benn premier ministre bo xamanteni non ñun accepté non ñun accepté wuñ ko moo tax ñuy xeex xeex bii nii c'est-à-dire sénégalais xam nga ñom dañu japon né ñun xam nga ñun on est dans les réseaux da ngay dem TikTok def ben live 4 h 5 h de temps yéeg ñom sen live wa passé mais ils te disent que non pétrole bi jaay nañ ko.

Les sénégalais waa limi wax ni du deug 10 de cent yi mu leen di wax du deug pipeline niñ tek du deug yéen 2022 ngeen ko man 2021 non voilà. non xam nga 2022 man si la commencé. Ah, mais dans les réseaux 2021 vais présenter le livre bi ñu ne ma voici la solution pour régler le problème des sénégalais. Hmm. ma ne ko jëf ngeen hors sujet. amul kenn ci aduna ko am solution pour un état. Hmm. état mécanisme mo koy doxal mais du solution. Hmm ci laal ne livre bi li ko tàmbalee ci kaw ba ci suuf. Mhm. amul kenn koo ko mën a jox nga jox ko état mu appliqué ko pour mu développer état bi et je crois que l' avenir m'a donné raison aujourd'hui mais moom laa lay man j'ai jamais cru à aucun mot wala benn parole boo xamante ni de 2021 ba 2024 mille vingt moom mii di premier ministre mës na ko wax. livre bi benn vœu pieux la rek. wax naa la ko dara dara bettu ci. non gëm xamu man mii di wax ak yow xam ne naa lire naa livre bi trois fois. Ah. amul lenn lu ma bett si livre bi ñu demee mi leen tàncee dans les réseaux ba ñu sonn ñu ne léegi livre bi ñoo xam lu ñu mujjee wax ñu ne ñu livre bi du programme mais vision la. vision la léegi dem len xol jotna jotna programme jotna ñu dem xol programme jotna ñu ñew ne len mais programme buy taxaw fay am cadrage macroéconomique. Mhm. Ah, am quantification et cetera te defo len ko. ñu ciangat dem génné ji jomay 2024. légui nak lolu mo indi tay ji biñu démé au niveau biñu accéder au pouvoir mhm. mais conseil des ministres yu ñëkke ñom ils ont carrément avoué que ne ñoom amuñu programme. ils sont des stagiaires en plus. très bien lolo tax sax ñom ñu def sen genre stage gi ñu mu euh séminaire bobu ñu defon séminaire de formation té pourtant ñom njëkkoon nañ wax ne ñoom soxlawuñu kenn jàngal leen parce que dañoo xam état maîtriser ko. Légui nak les réalités de l'état mo leen dab dab bi moy hmm. état surtout yu melni Sénégal on est dans un pays pauvre. ay programme structurel ngay teg yoo xamante ne tey dafay permettre ñu génn ci liñ nekk nii. te loolu la PSE bi indi woon. mais malheureusement nag suñu mbokk yi peut-être bu njëkk ba nañ daan expliquer PSE bi xëy na moo demee wut noonu. gëm naan dinañ la woo de. nga jàngal leen suuf. kan man <laughs>